sama mbokk téléspectateurs yi bi gab naa leen bi wër a wër yéen ñi may bëggee di ma safoo di ma titaroo ay ca sista bi la ànd ak yéen ak Africa Presse 24 ñëw nag fii ci Malibu seet si ñi nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni dañoo ñëw fii nag uniquement pour sangu def leen la mooy dugg ak gars yi nag waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom suñu émission toppale ma ñu dem sëñ bi nuyu naa la waaw maa ngi lay fay maa yaa ngi si jàmm bu baax a baax waaw comme ni ma la ko waxee waa Africa ñoo la seet si woon ñëwoon fii ci Malibu di laaj nan nga ah ni ma dundee plage moom neex rek waaw xam nga dëkk yi moom fan nii dafa tàng waa ba pare xol yi neexul kon il faut ñu ñëw si géej gi pour mën a jël air waaw mën a fàtte defet bi ak naqar yeeg yenn yeeg yooyu quoi. waa lan moo tax xol yi neexul. ah yow xam nga rek ñun dañoo jógee si benn match boo xamante ne dañoo amoon yaakaar mais yàlla def lu gën waaye dañ koy sant yàlla métti na nag trop. waaw mais daal xam nga li ma lay wax quoi mooy sunu defet bi rek. ngeen ñëw daal uniquement rek pour féexal xol waaw waaw pour féexal rek. jeex na ñu lay bàyyi bëgg nañu daañu dox rek daal di xool xale jigéen yi ak xale yi. xanaa ñu wax ak bi rek sëñ bi na nga def. maa si jàmm bu baax. ñu ngi sant waaw. waa Africa Press 24 ñu nga seet si. ñëwoon xool euh, ni nga dundee géej gi bi. waaw dañuy ñëw rek toog jël suñu temps xam nga dund beneen mbiri si ma a xam kase. sànni ko fulaale. waaw def teg suñu ataaya kaf ñibbi jot ñu ñibbi nang. ceete bi daal. waaw def ni donc kase. ci naa leen. Oh, iya. Mais Jamba. Mais Jamba. da ngeen Malibu. oui. été hmm. bi la wala défet bi moo tax ngeen ñëw. Défet bi. defet bi moo tax ngeen ñëw donc da ngeen ñëw uniquement pour fexal xol. loolu moo ñu fi indi won quoi. oui. Señ bi la wax yow. Wa, dara defet mom moom mooy quoi yoon la mais contane nañ ci quoi contane nañ ci sur Sénégal bu baax. ok wa Africa 24 la. Africa waaw seen liggéey naas na. donc dañoo ñëwoon rek pour nan ngeen plage bi géej gi affaire yooyu du genre enquête bi juste rek pour ngeen wàccee coono gi coono match bi rafet match bi la wala ñu démé nonu wa dara e mais wa lepp ci biir xawa ñew fi ñëw fi xawa la a waté affaire yi nonu lepp ci biir la quoi ok bi nga ñu dox nank rek and ak suñu cameraman bu ñaawul bi wa comme ni ngeen koy waxee woon ngay dox nank rek and ak suñu cameraman bu ñaawul bi fekk xalé go tok ni daf sané ko fulaale cheikh na la delo siyaar ma yaa ngi si bu baax sante bu wér da nga ñëwoon Mali bi pour sangu waaw ins waaw lan mo la indi man dama ñëw entraînement après ma sangu ni quoi. entraînement xana mbeur nga. non non damay défar sama yaram rek. da ngay défar sa yaram. <laughs> macha allah. waaw damay défar sama yaram rek après ma sangu ni quoi. fexal sama xol quoi. donc yaa ngi été wu bax waaw neex na. waa la. wa delo siyaar nga dundé plage bi. wa plage bi neex rek saf ya ma gëna xam. Ah. waaw lan moo la indi xale yi jigéen ñi la indi wala da nga ñëw uniquement pour feexal sa xol wala defet bi moo la indi xam nga rek damaa ànd ak sama ma tey da ñoom ngeen àndal fii ci Malibu donc duñ def leen rek li mooy wax ak euh, ñett nga xamante ñoo toog fii soxna si nuyu naa la ça va bien yaa ngi si jàmm ba maa ngi si jàmm da nga ñëwoon tey ci Malibu oui oui lan moo la indi woon ah ñëw partager entre amis rek feexlu féexlu sànnee ko fulaale. waaw ba ba bu baax. bu baax <laughs> neex na sëñ la indi woon yow. waaw ñun de saa yi sànnee ko tamit fulaale même chose rek. Ah. waaw raar mu liis kay. ñoom daf ràcc. ràcc jëmale suba. suba gars yi bi gab naa leen maa ngi si jàmm. ngeen ñëwoon tey euh, fii ci Malibu lan moo leen indi woon. ah tey dama ñëw pour féexlu nii teg suñu zëm toog dal jàmm. man ak ah. sama gars yi xam nga rek dund ko. ah ngeen jógee uniquement Pikine ñëw fii pour féexlu dallu du genre waaw pour dallu ni ak gars yi xam nga air bi nii day baax su ñun quoi. nan ngeen dundee géej gi. ah géej gi moom instant yii nice. Ah. waaw toog si waaw sama waay sa waay ni mu demee yow. waaw ah, bien <laughs> yaa ngi si jàmm bu baax. kon nan la dundee géej gi. ah géej moo def pour féexlu dal ma quoi. donc da ngaa été aussi. damaa été su nag. waaw ah, yaa ko yëg baax a baax. <laughs> bu baax wi daal cegin nan maa ngi si yaa ngi si jàmm baax. da nga ñëwoon Malibu pour féexlu si. waaw dañu ñëwoon fii pour féexlu waaw. ah pour dalu daal. waaw nan nga dundee géej gi ambiance bi xale yu jigéen ñi xale yu góor yi na trop euh, dàkk stress affaire yooyu daal. stress pourquoi stress. ak defet beeg yooyu noonu foog nga ñëw ban génnee ko daal. wàccee coono gi quoi. waaw génnee ko. da <laughs> ciy baax mais yaa ngi koy yëg baax a baax. waaw maa ngi koy yëg ah, waaw waaw xale bu bi di whatsapp nii. <laughs> soxna si nuyu naa la. ça va maa ngi fi. yaa ngi si jàmm bu baax. maa ngi si bu baax a baax dama ñëwoon ànd ak sa eh, sœur su Malibu. waaw dama ñëwoon ànd ak sama sœur ak xale yi indi leen. mbaa yéen ngi koy dégg bu baax a bien sûr ah ñu ngi feexlu de ñu ngi feexlu comme mënuñoo sangu aussi ñu feexlu rek buñu paree dem. ah da ngeen ñëw uniquement pour feexlu donc sangu wu leen. ah bien sûr parce que fii baignade interdit la kenn du am sa njaboot di ko exposé fii nii. wóorul donc ah, pourquoi ñu koy interdit xanaa ah, dafa am ay xale yu fii la wala lan. non ba pare xam nga dafa am plage yoo xam ne dafa interdit parce que plage dafa bëri vague. Mhm. fii nii boo xoolee xam ne déjà du plage yoo xam dañ cee mën sangu. Mhm. nit ñi nag ñooy dëgër boppi sangu mais man moom franchement franchement duma indi sama njabot di leen exposé fii moom. c'est bien ça lolou mom duma ko def mom duma motax nga ñu indi ma pour tok ni rek fexlu gis nga pour fexlu rek na tay sen dex sen braada sen taan bu baax ni ah, non la rek sotti ah, entre. <laughs> sha allah contane nañ ci yeen bëgg nañ. ma yaa ngi si jàmm bu baax. Ah, maa ngi sant yàlla daa mel ni mën nga de. man jamais de la vie. <laughs> ne ko mbër la <laughs> mo leen di ci mbër kii bi. Hmm? geejgi geejgi ah. way way yi dal mo fi ñew dal am 15 ans mo ku jeen ki mais 3 ans nak musa jibo Oke, okay, makanya kita terus. Nah, ada senyum. non du man de. <laughs> waaw ko. <laughs> comme nous système bis Africa Press 24 nous sommes ci Malibu nous ñi nga nous uniquement pour pour euh, Nous bégé, donc dañ leen di ba Nous yoon euh, émission Africa Press 24 Nous naa bigam Nous